voté parce que àggaguñ ci suñu centre mais dañuy def euh, tuuru centre de vote yi fi nekk yëpp euh, bi ñu xëyee dem nañ euh, centre de vote Daaru naan Al Azhar bi ñu fa jógee lañ ñëw fii ci centre de vote arrondissement mais li ñu fi gis dal na suñu xel vraiment gis nañ ci dispositif sécuritaire boo xamante ni dal na xel gis nañ ne aussi nit ñi vote bi intéressé na leen génn nañ pour voter ci li ci ëpp solo aussi mooy nit ñi Euh, warmaal nañ dëkk bi def nañ ko si calme def nañ ko si jàmm donc ni mu débuté nii loolu la ñaan vote bi continuer nii incha allah ñu vote si jàmm ak salaam. ni ñu ko gisee gunde am nañ ci yaakaar danañ woote ci jàmm ñu bisiwaat suñ suñ kër jàmm xool suñ leader bu ñu bi ñu tax a jug ñu wooteel ko delluwaat ci jàmm loolu daal lan doon ñaan te fi ne nii rafet nañ ci njort ci école bii ñuy wootee waaw rafet nañ ci njort lool. fii ni ma ko gisee daal xam naa ne gox bi rek ñoo ci daje ñu ma fi gis ñëpp daanaka ñoo bokk dëkk ay ci mbake mu Mouride rafet naa ci njort lool moom affaire yi moom ni ma ko gisee nii moom su fekkee ne fépp nii la mel moom di leen sant yàlla bu baax ndax di leen ci jàmm delluwaat suñu kër moom rafet naa ci njort daal. ah gis naa fit nit ñi bari ñi rek ñu toppatoo rang bi rek waaw woote dem ñibbi. naa lu yeex rek woote bu yeex te wéruñu. waaw loolu rek laa gis. man la Mariama Touré responsable ñëwoon tey def devoiru citoyen. waaw macha allah huit fi la ma fekk waaye bi ma ñëwee wax dëgg yàlla gisuma fi dara loo xam ne jaaxal na ma dugg naa ci bureau yëpp wër naa bureau yi xool naa. wax dëgg yàlla gisuma fi dara nii mu tàmbalee daal li may wax mooy alhamdulilahi rabil alamin rafet naa njortu ne lépp dina continuer nii ba ngoon ndax gis naa ne waa Touba moom toujours dañoo xam seen force dañuy génn ak yéene dañuy génn ak fulla fayda ak xam li ñu bëgg ñu di ko def te bu ngoonee incha allah xam naa ne waa Touba fañ ko daan jaarale fa lañ koy jaarale